ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës euh, barke ji euh, benn waay la fekk mu ñàkk bakkanam foofee ca Marigo ba euh, loolu nag tax na ba askan wa nekk ca ak njàqare ba nu yëgee li ni mel moom sous-préfet ba moo ànd ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi fekk baax fa la ci diwaanu Linguère ba ñu demee itam ne ñu génne néew ba yombutoon ndax yàqu ga mu tàmbali woon du yàqu beneen njombe itam gis nañ ko muy ñeenti doomu aadama Adama di ñeenti tout tànk yu ñàkk seen bakkan euh, fële ca Kolda ñoom it danoo lapp ñoom gune yooyee loolu nag tax na sax ba askan wa di woo rek nguur ak Sénégal ñu jàppale leen ci pont yu baax ndaxte ñaar ci ñenn ña dañu doon jéggi pont ca lañ wadd ca ndox ma boroom bi def la ko soob beneen ponk mbokk yi euh, muy commune bu Tivaouane euh, Diacksao ñoom ba tey ña nga ca ndox ma ndax moomee ndox jugeegul ca seeni kër askan wa metti di dund lu metti nee ñu nag fi mu ne nii Euh, amuñu benn euh, loo xamante ne si mën nañu ko def ba génn ca ndox moom nga xam ne euh, dañu cay dund beneen ponk mbokk yi muy juróom-ñaari milliards yi nga xam ne nguur ak Sénégal ne dina ko dugal ci lu aju ci ñaar fukki service régionaux ak itam préfecture bu Kaffrine maanaam daal ay liggéey la yoo xam ne dañ koo def ngir ñoŋal boobilee région président de la république di amal ab tukkib nemmeeku wala bokk tukki bu aju ci wàllum koom moo xam li ni mel ba mu dem ci diwaanu maan fekki fa Omar Ndiaye euh, débat di waxtaan wala bokk euh, werante ci ñetteelu mandat bu euh, président Macky Sall ay meeru ñi moo ko wax na ci fan yi week-end bi nu génn ba tax na sax na fi Diallo mi bokk ci parti démocratique sénégalais yore sax lu jëm ci communication interne la mu gis rek mooy dañuy tuur lëndëm askan wi fi mu ne nii itam la muy sàkku ci naataangoo mi ne ci kujje gi ñu def fenn say fexe ba xeex lu ni mel xeex itam mbas mi Sénégal def na ab taxaw seetlu ci xeex ba jéego yi nga xam ne def nañ ko ci lu jëm itam ci màggal ak Touba gi nee ñu euh, dinañu def ay euh, loolu ñu naan riposte daal di koy teg tak ci juróom-ñaar ci ay ponk la ñu bëgg mooy fexe ba askan wi moo xam fu mu mën a jugee euh, ñëw foofu ca dëkk ba li nga xam ne mooy mbas mi du falew ba noppi itam du kenn li ceenekaay ma Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàcce rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy euh, doore ak nanu ko junjee ca barke ji euh, benn néew la nu fekk ca marigo ba askanu barke ji nag nekk ci aw tiis ak njàqare ba nu yëgee li ni mel sax euh, daal dinañ koy wax nga xam ne moom mooy sous préfet bu Linguère muy Amadou Bassirou Ndaw mu ànd ak way takk der ya ñu ñëw waaye itam ba nu gisee mooy néew ba na mu tàmbale woon di yàqu tax na ñu def ay waxtu laata ñu koy génne di fàttali rek ne nawet bi ba mu dooree itam am na yeneen jafe-jafe yu ñu nemmeeku foofee ndax benn itam baykat euh, ay bés yi nu génn euh, faatu na foofee ca doj ji dinañ ci ne wàcc nu mu gën a leere ak nu toggal ca diwaanu Jolof ñu des ba tey ci beneen xew-xew bu tiis muy ñeenti tuut tànk yi ñàkk seen bakkan danoo lap ca diwaanu Fulaadu euh, loolu nag tax na ba askan wa di sàkku ci nguur ak Sénégal ñu dimbali leen ci ay pont yu jàppandi jàpp leen ñeenti ñi faatu ay ngune lan ñaar ñi dañu doon jéggi pon euh, anam ya mu demee moo tax ñu sërëx ca ndox ma ba borom bi def la gën dañuy dem ca diwaanu Fulaadu fekki fa Abdoulaye Diallo ñeenti gone yi lab ci ñaari fan fii ci Kolda muy jéeyo bi lëmbee xibaar yi ci diwaanu Fuladu ñaar ñi dañoo lab ci ab kàmb bu carrière suuf ñaar ñi si des daal di lab ci dex bi jaar ci diggu dëkk bu Kolda. parce que mine de rien deux on a quatre cas de noyade loolu moom yéeme na ci dëkk bu mel ne Kolda. démb démb mi ngi woon. Sare Moussa Ndour Sare Moussa Ndour les deux les deux de dix à ans fii tey Ilel. un gosse âgé de 12 ans fële euh, Saare Tamsir un gosse âgé encore de 12 donc c'est des jeunes. yàlla ak sapeur pompier yu groupement de recherche en profondeur bu Sédhiou moo tax ñu gis néew aji ndem si yàlla yi bi la jeeyoo mooy delloo ca boy boy ga ñaxtu yi askanu Kolda yàggoon a ñaxtu ngir nguur gi tabax fii ay pont fu askan wi mën a dem ak dikk te ñu jëkkali tabaxu pont Ilel bi nga xam ne tàmbali nañ koo liggéey depuis 2006 waaye ba léegi tabax bi mun a yegg. déjà kaaraange population ci la bokk. pont bi buñ ko amoon lii am tey du doon am donc am nañu yaakaar boobu tey même li ci gën a bare ci accident yi nga xam ne yu mel nii ci cadre noyade dinañ doon wàññeeku fii ci euh, diwaanu Ilel. mu waral ñuy joytu ci kanam njiitu réew mi le président Macky Sall. ñaan autorité ñu ngi naan son excellence le président Macky Sall euh, pour mu jàppale ñu nu ñuy jeexalee pont bi naam pont bi buñ koy commencé yàgg na jamono 2006 la balaa muy falu mais ñun ñu ngi koy ñaan. ndaxte bu ko defaree ñun la dimbali population Kolda la dimbali surtout population kilo Ilel. ñu dimbal ñu ci pont Ilel pont Ilel encore une fois programme Kolda 2006 ba léegi pont baa ngi nii pour éviter ces genres d' accident là vraiment ñu ñaan gouvernement bi ñu achever pont Ilel c' le cri de cœur non seulement de Ilel mais cri de cœur pour Kolda lépp. ak taw yu bare yi fiy daanu ci fan yi gox goxaan yu bare yu diwaanu Kolda dem ak dikk bi dafa jafe lool ngir ay yoon yi dagg ay pont yi ndox mi muur wala ay pont yi màbb Abdoulaye Diallo ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci commune bu Tivaouane Diacksao ñoom it ndox mu bari moo leen sonal ñoom sax ne ñu euh, askan wa ba euh, ndaawit bi dooree ba léegi ñu ngi caay jafe-jafe amul lenn loo xam ne mën nañ caa jàpp ñu ngi tax na sax ñuy sàkku euh, ci nguur ak Sénégal mu gaawtu ci plan ORSEC bi ndax itam ñu mën a génn ci ndox moomu ñuy yendoo ko fanaan Abi fay Modou Diop lañ ci àndal. ni koñ yi mel nu ko raw la biir kër yi mel. askan wee ngi xuus ba léegi di fanaan ci biir ndoxu taw yi seen matériel moom waxi noppi lépp yàqu na ñu ne ku leen di dimbali rek lañ gën a bëgg am di ngàcc suba ngàcc ngoon pa bi daa xëy ngàccaat ni lii ngay gis ni da koo ngàcc balaa moo dem ci ndox bi lañuy fanaan gis nga lii la teg ay briques la ñu indi fu ñu yëg pour ndox ñu bañ ñoo laal fii mooy diwaanu Tiwaawan Jaksaaw askan wi dañu mujjee lot ndax doomu jàngoro ya nga xamante ne exposé wu na seen kaw ñu ne ñoom xamatuñu nu ñuy def. ñi laa fi nekkee samay njaboot métti torop man foos bi ak yëpp ñoo maase woon foos boobu xam nga foos baa ngi noonu. Mm-hmm. moog néeg yi yëpp a maase woon. dafa mujjoon xale yi dañ doon dem di tëdd fee ci kaw terrasse ñu ndimbal ci wàllum dund du loo xamante ni soxla nañu ko ku ngacc ndox mi lañu gën a soxla. ndax ndox mi dama doon jéem a defaraat fii mais gis nga suuf bi ma tegoon fii ci mbedd mi yëpp nit ñi dañ ko tibb yóbbu seen néeg yi amuñu douche amuñu fu ñu sangoo ñun du problème mu ceeb moo ñuy lijjanti. aw ma fu ma tëdd aw ma fu dañuy lekk dañuy naan xale yi ñu ngi fi dañ leen di fayal dañuy jàng doy na waar daal. gisuñu benn yoon kenn ci ay autorité ku ñëw sax masawu leen ci seen i kàddu. ñun ñëpp xam nañ ni nit ñi sonn nañ li nga gis léegi yéeme na mais ñooñu au moins les autorités locales waroon nañ ñëw seen wet bu ñu leen pompelul ndox mi sax ñu masawu leen. mais gisuñu leen dégguñu leen loolu aussi c' est un problème que nous dénonçons. mbënn mi mu ngi gën di woy fii ci diwaanu banlieue bu Pikine rawatina ca Tiwaawan Jaksaaw askan wi ne seen xel ëlëb na lool seeni wér-gu-yaram tàggatémbe na xamatuñu ana nan la ñuy def ku leen di dimbali ñu jël waaye fi mu nekk nii lii di ndox mi ak ñoom ñooy gën di dëkk. Abi fay ñëw sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen mu juróom-ñaari milliards yi nga xam ne nguurug Sénégal nee na dina ko def ci diwaanu Ndoukouma ngir gër koo suqale loolu nag nee dina ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur privé bi ñu ne sax liggéey bi eh, fii ak juróom benn weer dinañ ko eh, noppil moom njiitu réew bu Sénégal ba mu demee itam Ndoukouma jàll na foofu ñu naan Medina Baye Kaffrine ngir jébbal njaalam eh, njabootu xalif bi làqu àllarba ji nu génn Omar Ndiaye ak Boubacar Fall Bopp la ñuy fekk ci diwaanu Ndoukoumane ñoo fa toogal groupe Futur Média bi ñeenti waxtu ak genn wàllu jotee la njiit réew président Macky Sall agsi fii ci diwaanu Kaffrine wutali nag taaxu mi nga xam ne moom lañ jagleel bépp service bu wekk ci état bi ñu di ko tabax mu toll ci juróom-ñaari milliards. ci noonu nag la ñoqali wutali dëkk bii di Médina Sy jot na faa nemmeeku lu toll ak juróomi téeméeri hectare gerte yoo xam ne jot nañ ko foo bay ci noonu sax ci la jot a beru lu toll ak benn waxtu amal waxtaan ak taskatu xibaar yu nekk ci bitim réew laata nag muy jàkkaarloog yi ci biir Sénégal mbay mi dañ ko soqali atum ren gannaaw nag bi xelam dalee ci li mu gis ci diwaan bi. jot ko itam moo tax bi ñu bi ma ne léegi nañu def plan de relance maanaam plan boo xam ne dañuy dañuy yëkkatiwaat koom-koom bi ndax feebar bi comme dañu tëjoon lépp koom-koom bi dafa wàcc nañu xool li koy yëkkatiwaat ci gën a gaaw te ñu fexe ba réew mi tam léegi nag li ñuy dundee ñu koy béy si biir réew loolu kon mbéy mi forcément daf ci am pàcc bu am am solo muy agriculture ci ci relance bi tam dinañ ci gën a taamu ceeb bi dinañu gën a dooleel aussi wàllu euh, pharmacie ndax am na tey jii bu dee alcool sax foog nga jéggaane ko bitim réew witteen foog nga wuti ko bitim réew tikki ping pour ñu ping nit foog ñu wuti ko bitim loolu jaaduwul donc am na suñu nga xam ne dañ décider di ko produire fii ci réew mi mais nag du gouvernement mooy def ay usine waaye na def facilité ngir ñi war a investir privé yi ñu mën a toog ñu jàppale leen ñu mën a def ak yenn garab yi nga xam ne àdduna tamit lu jëm ci wàllu Sonacos ni ne daañ ko dimbal ci ay koppar ba mu mën a dékk campagne ren gii ba fa noppee nag ci la wutale dina Baye bu daal di jébbal ak njaalam njabootu Cheikh Adou Barham bi nga xam ne làqu na ci alxamis bi ñu génn mu ngi noonu Omar Ndiaye bi ñu jógee ca diwaanu Ndoukoumane ñu wax ci lu jëm ci wàllum politique ñetteelu mandat bi indi werante muy mandat président Macky Sall wala boo candidat euh, Macky Sall Nafi euh, Diallo mi bokk nag ci parti démocratique sénégalais la mu gis rek mooy euh, coow loolee du dara du du tuur lëndëm askan wi li muy sàkku ci kujje gi mooy ñu def wernub say xeex li ni mel ndax dafa gis ne moom président Macky Sall fi mu ne dafa nekk ci waajal élection locale jaarale ko nag ci ay tukki yoo xam ne daf ne koom moo ko tax a jóg na Nafi Diallo. la ñuy teewlu ay kàddoom Chérif Dia ak Diafara Ba ñoo ko taataan. ma divertir man waa APR duñ ma divertir xam nga troisième mandat boo xam ne 2024 la euh, mu génn di di ñu sànni os à ronger ñu nat ci wax ba kañ ba 2024 kañ la ñuy suñu ay euh, base kañ la ñuy construire suñu suñu programme à nous kañ la ñuy wax ak sénégalais yi bëgg topp mag yi rek chaque mois mu sànni ñu benn ñu jël feeñu wax a wax a wax wër plateau yi wax ba dee moom muy liggéey ci suuf ñun ñu taxaw di di di xoolee keroog bu jotee population sénégalaise yi dinañ jël seen ay euh, disposition i euh, euh, Sall daf ñuy dafay naxaate parce que loolu la ñu tàmmal saa yoo ko gisee muy def ay tournée économique yooyu mi ngi pare dem élection donc man du ma bett mu xëy suba rek annoncé ñu datu locale yi ndax defar na léppam ba mu baax scrutin direct bi parce que xam na ni département yu bëri mënatu ko gagner il le sait euh, donc il y a une opposition euh, fantassin que je vais je vais la nommer comme ça boo xam ne defaral na ko lépp ba mu baax pour mu mun a jéem a remporter ay élections donc yii muy def yëpp ñun ñëpp xam nañ ni c'est pour préparer ay locales parce que mënul continuer di yokk mandat maire yi illégalement donc opposition bi moo war a yeewu opposition bi moo war a wàcc sur le terrain ku ne bay sa waar waxuñu ñu ànd parce qu'on peut pas surtout mais au moins ku nekk dem ci terrain bi jël ko benn mu ngi noonu président Macky Sall ma nga diwaanu Kaolack ca gouvernance ba di séddale lu jëm rek ci matériel euh, bi euh, aju ci euh, PUDC ñu wéy ba tey ci xibaaru diggu bëccëg yi wax itam ci mbas mi ak ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo yokk ci ñu ko amoon te jamono téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wér nañu tey ji itam benn doomu aadama ñàkkut bakkanam maanaam benn rotul ci mbas mi ba noppi itam ñi sonn ba xaw loof ñi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom Euh, tey ji itam euh, am na beneen lim bu takku bu weer wér docteur Mamadou Ndiaye ma ñu dénk lu jëm ci prévention mu yor kàddu bés bi ci ministère de la santé. ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay cas contact lañ ñooñu dañoo jot ci mbas mi. fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll wala fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Jamñaajo am ci benn Fann am ci benn Fanok am ci benn Géejawaay benn Kédougou benn Mbaaw benn Mbuur benn Waguñaay benn e Wokam am ci benn téeméer ak juróom ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bi si yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk ba senegal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi aywa ñu wax ba tey ci euh, mbas meek dañu koy xeexee fii ci réew mi Sénégal def naa taxaw seetlu bi jaarale ko ci ab lël xool euh, ponk yee ca yéen ca gën a jàmbaare waaye itam xool fan la ñuy gën a defaraat lu jëm itam ci approche communautaire bi mooy fexe ba dugal askan wi ci xeex baak lu mel loolu yëpp waxtaan nañ ko docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye moom lañu ñu lu jëm ci wàllum wér yaram ba ñu ko déggee mooy directeur de la santé ay kàddoom Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan engagement communautaire la laaj parce que man en tant que médecin wala infirmier wala bu ma demee du man may organiser village ba déedéet du man may organiser diwaan bi acteurs communautaires ya fa nekk ñooy dugg ci kër ne leen bés nangam équipe bi dina ñëw vacciné kon nag ñoom gàcce ngaalaama ñu ngi fi am nañu représentant mais wax nañ ma lu am solo nee nañ ñoom tamit sax bëgg nañ def lu mel nii nee naa leen na ngeen ko préparé parce que nag fi ñu toll nii ñun xëy na dañuy piloté nii rek mais ñi ci gannaaw kàngam ñi ci gannaaw dañuy wax expert à tous les niveaux acteurs communautaires ba fa ma munti yem ñun ñooñu rek la ñuy déglu. yéen juróomi fan yi wër ngeen amoon nañ lu toll si mun naa wax ni presque 75 activité parce que nee naa la ñi fi daje dañoo jaxasoo même bu fekkee ne benn objectif la. Euh, une centaine d'activités mais di gën a metti diggante démb ak tey mooy ñe ci yooyu ngeen am ku ci nekk fukk ak juróom nga génne bu ñu paree dañ koy jox le ministre de la santé action sociale bi nga xam ne moo ma fi teg moom mu jox ko l'ensemble du gouvernement ñooñu nag jox ko tey ki nga xamante ni mooy suñu njiit te ci njëlbeen ba léegi vraiment mu jàppale ñu te kon ni ñu jàppale mooy seen excellence président la Sénégal bu boobaa nag bu ñu validé yëpp ñu dugal ko ci beneen plan fas yéene encore parce que bàyyeeguñu ba fi ma lay wax ni ñu ngi jàkkaarloo virus bi te moom comme bëggagul dem ñu en tout cas nañ ko woon ne ñu ñun am nañ léegi jumtukaay yoo xam ne di nga fi jógee wala boo toogee di nga toog ñu des ba tey ci mbas mi ak xeex ko jamonoy màggal ak euh, Touba mu mel ne sax ñi nga xam ne dañu leen dénk lu jëm ci wàllum liggéey ba euh, fi mu ne nii ña nga cay càmbar ak xool nu ñuy def nee ñu dinañu def i pexe euh, ba li nga xam ne moom mooy mbas mi du law ca dëkku Xaadimu Rasuul waaye itam kilifa diine yi nga xam ne dañu leen di ziar lu bari ci waxtu màggal itam ñu fexe ba aat leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kuréel googu ñu taxawal dañu doon janoor taskatu xibaar yi professeur Massamba Diouf ay kàddoom Mouhamed Sodiop ak Talla Samb ñoo ko taataan ngir yéen toogal groupe Futur Média ca Touba jàpp mbàkki Bawol ay ay jumtuwaay yoo xamante ni buñ ko jëfandikoo ci wàllu xel ak xalaat ak ci wàllu jëfin danañu mën a dimbale pour ñu mën a fekk feebar bi nga xamante ni moom mooy am bi ci njëkk mooy ñu fexe ba wàññi wala ñu dindi lépp loo xamante ni niru na risque contamination mooy wàllante bi wàllante ci wàllu feebaru Covid 19 ci yenn bërëb yi nga xamante ni ay bërëbu ziar la. wala bërëb la yoo xam nit ñi dañ fay daje wala bërëb yoo xamante ni aussi dañ fay dëkk beneen bi ci topp mooy nu ñuy def ba dooleel dispositif bi nga xamante ni moo fi am doole jooju nag mën nañ koo jëfandikoo ba nga xamante ni képp koo xamante ni yaakaar nañ ci yow feebar ñu mën la orienter ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni ministère de la santé de l'action sociale teg na ko ba pare unité d'alerte et de prévention ñëw appuyer leen aussi en termes de ressources beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni mooy tax ba nit ki yenn wàllu comportement yi mu war a am ba nga xamante ni liñ koy sant ci feebar bi mënu ko def wala boog lii tax ba moom nanguwul feebar bi ne feebar bi am na ñu fexe ba dindi loolu am na beneen axe boo xamante ni moom day wax ne képp koo xamante ni sëriñ nga am mbooloo mbooloo di daje sa kër nañ fexe xool naka la ñuy def ba mën laa fekk ba feebar bi du mën a yegg si si yow wala boo feebar bi du yegg si si biir kër gi. enfin beneen élément bi nga xamante ni moom la ñu mooy fexe ba bisub màggal nekk bisub ñaan. aywa ñu wax itam ci leneen muy euh, bateau yi nga xam ne dañoo demalo dañoo dakkaloon seen dem ak dikk ca diwaanu Ziguinchor daanu tàmbaliwaat ab liggéey euh, ñu ngi ko yàpp sax ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar euh, muy liggéey boo xamante ne si ñu bëri ñu ngi ko doon xaar askan wi itam gis ci seen bopp loolu dañoo toog ab diir mënuñoo dem dox yenn soxla dox yenn ci seeni soxla ndax lu ni mel waaye nag ña ngay am yaakaar rek ne ñàkk sa bopp ñàkk ña ngay jëflanteel ñu gën koo xam ci mesures barrières daañu sàmmonte ak moom euh, ci biir bato yooyu dañ ci ànd ak Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang dikk ba tey Kosama ci diggante Ziguinchor ak Dakar bi taxawaan di mat na léegi juróom benn weer suba talaata 22 septembre lay tàmbaliwaat mu doon ab mbégte bu mag ci askan wu yeewu Ziguinchor. vraiment bànneex la parce que tey euh, ku xam euh, bato bi njëriñ bateau bi ak ku xam vraiment trajet Ziguinchor Dakar en passant par Tamba. donc loolu métti na loolu même man euh, jaar naa foofu gis naa euh, métti yaay boo am foofu parce que euh, pratiquement 1000 kilomètres donc toog 1000 kilomètres en taxi waa wala en bus donc li waa waa dëgg yàlla nouvelle bu neex la. oui kontaan bu baax a baax. si parce que méttiwoon na trop di gërëm tamit population yi si seen patience parce que toog nañu xaar te loolu yëpp du coobare état bi parce que amoon na li amoon fii lu xewoon fii protéger bëgg ñi ñi nekk si wér-gu-yaram moo taxoon bëgguñu woon jël dugal bato bi. gile professeur français bokk na ci sénégalais yu doon joxe seen xalaat ci xarala yu bees yi. rawatina réseaux sociaux yi. ngir ñaan tàmbaleeg rotation yi. voilà ñun ñun dañ def ay action ci réseaux sociaux yi di dénoncer loolu parce que effectivement dañ ne comme mënuñu gis président de la république mënuñu gis ministre léegi la ñu mën def lañ def. donc réseaux sociaux yi dañuy dénoncer voilà conscientiser nit ñi donc loolu yëpp Ziguinchor waay la ñoo si jóg pour que bateau bi mën a reprendre. waaye nag kenn ku ne ci passager yi war a jël bateau yi war naa fexe ba sàmmwante ak lépp luy mesure barrière ci biir bateau yi. voilà population wóolu naa leen wóolu naa leen lool lool lool parce que ça six mois ñi ngi ak feebar bi léegi nit ñi xam nañ ni ñuy dund ak moom donc ragaluma peut-être bu ñu demee ci bateau bi mu am ay contamination ak yooyu man dam leen woolu xam naa ne bu ñu demee ci bato bi ku nekk dina aar boppam aar ñeneen ñi. nga digale mesure barrière yi donc tey man gis naa euh, métti na méttiwul tey nit ñi ku nekk mooy jël conscience boppam parce que il faut que lu ñuy wax responsabilité individuelle. individuellement ku nekk jël ses propres responsabilités parce que gis nañu mbaat bi mi ngi nii mi ngi fii dina nekk fii ak ñun. li askan wi yeewu Ziguinchor xaw a métit lu moo di bato Aline Sitoé Diatta xamante ne suñu sukkandikoo i wax bu a confortable que Boubacar Dias yi ñu sant ko bu baax gërëm ko wax ci leneen muy xonjoo dëkk la boo xam ne askan wa ñu ngay dundi jafe-jafe nee ñu ndox amuñu ko benn teen moo fa bënn euh, te itam anam yemu nekk mitti na ba noppi itam dem baak dikk ba xaw a tagga témbe askan wi dund ci bàyyi napp ak euh, càmm ñu ngi dundi jafe-jafe léeg-léeg sax ñu seen meew mi day yàqu ndax duñu gis ku ko jënd ñenn ñu taxaw ngir jàppale leen itam fëgg na ñu seen gémmiñ woo nguur ak Sénégal mu gestu askan woowu ne ñu bokk ci réew mi te gis ne dañu leen code di Cheikh Anta Diop teex lañ ci àndal. ju ab dëkk la boo xamante ni mi ngi ci mbooroo sorewul lool géej gi waaye fii askan wi fi yeewoo dañu yëngu ci wàllu mbayam dër càmm gi ba ci napp gi waaye nag dëkk bi dugg fi jafe na lool tali bu baaxul. du jaar ngeen ci wala jaaru leen ci wala avion ngeen jëloo waaw mu ngi noonu nag tali moom kenn du leen ko nettali ndax ci ay biir pak ngeen jaar. te am ndox de jafe na fi jigéen ñi sax ci teen yi la ñuy roote. ñun daal dañoo bëggoon ku ñu maye ba ci biir kër ku nekk nga ca sa kër ba fay facture jotee nga fay bu tëj jotee nga tëj ndax teen moom dafa kii bi ndax yaa ngi ne jóge Dakar def mos xam nga loolu yëpp ragal la ñun nag ñu ngi nii ay baadoo lañ ci tefes gi lañu nekk. climat beeg ndox mu salte bi ak lépp ñu ngi ci. Dira Fall nag moom ci kuréel gi ëmb réseau des associations pour le développement et l' émergence des Niayes la bokk nee na askanu xonjoo gi de sonn nañu lool. yenn saa yi defee mbay mi day am lompa ndax yoon yi neexul ba pare coppali mi tamit yenn saa yi duñ ko mokkal jën wi tamit amuñu ay bërëb yoo xam ne mën nañ koo jël ba denc ko. am ko tamit ci càmm gi. loolee tax nag ay kuréel dikki fii ci xonjoo fas yéene jàppale askan wi tëral nag ab société boo xamante ni jàppal ma jàpp lañ koy tudde. suudu meeɗen e société par action simplifiée la pour jàppale maanaam baykat yi. jàppale sàmmkat yi nappkat yi danañ leen jëlal ay motuwaay li ñuy napp tamit ñu mu bañ a maanaam yàqu ci seen loxo. ndaw ñeeg jigéen ñi dañ leen fas yéene téye nag ci seen gox ju bañ di màngaani ji ba lépp loo xamante ne wàllu formation la wala defal leen ay unité yoo xamante ne meññeef gi fiy génn de ak soow mi daani ko mën a coppar ñi ba du yàqu. Anta Diop ñu wax ci leneen mu jiite jàngu ba ci diwaanu Thiès moo sëñeer euh, André Guèye mi ngi sàkku rek ci askan wi waaye itam kilifa yi euh, ñu booloo doon benn waaye itam fexe ba gën a sàmmonte jox gëdd li nga xam ne euh, mooy sunu alom bi moom abbé itam doon amal rek abbé bu jo fële ci diwaanu Thiès doon amal ab mees bu xew-xew diine bu am fële ci diwaanu Bambey foofu sax la yëkkati kàddu yi ci teewaayu Babacar Diouf ma fa toogal groupe Futur Média Bambey Mbay jàpp njaareem. waaye am na ay événements yi nga xam ne euh, mënuñu bañ a def dara comme fête bi annuellement ak itam euh, li ñu defal sunu xale yi sunu ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg a jëmantu ci formation bi nekk be am na ay étapes yi ñu war a franchir loolu lañ leen defal tey moo tax exceptionnellement ñu ubbi culte bi xam ngeen ku nekk tibb astut ci li mu am jàng bi mu ngi ci nag ci place bu nekk am na Caritas am na Caritas bu diocèse bi ak bu national ñun itam ñu ngi def li ñu mën ndaa oyofal coono yi waaye inondation bi ah dañoo fal ay njiit ci communes yi ci département yi ci itam état bi ñooñu am nañu seen warugar ku nekk am na warugaram naam waaye ñooñu ñoo gën a féetale féetoo responsabilité bi euh, am nañ la ñu def nañ jëm kanam parce que inondation bi wan wadee na euh, direction li nga xam ne war nañ ko def encore euh, jàppale. askan wi euh, inondation moom nekkul seulement euh, foto changement bi waaye itam ah sunu comportement bi itam ci la kon maa ngi encouragé nguur gi ak ñëpp ñi féetewoo responsabilité bi ñoo jëm kanam ci wàllu assainissement. nañu setal nañu setal nañu naatal nañu reboiser. nañu itam créer ndox euh, yoon yi nga xam ne ndox mi war na fa jaar. aywa ñu wax ci leneen muy Cheikh Tidiane Gadio doomu Sénégal benn tabbu ndaw loo xam ne day topp day toppal la xew fële ca Mali ñi ko xamle nag ki def li ni mel eh, di secretaire général bu francophonie ñoom OIF xaatim nañu ab communiqué di ca xamle rek ne moom Cheikh gaajo Gadio eh, dina dox lépp lu aju ci mbir moomee waaye itam toppal leen ko teg ko ay gët la ñu bëgg rek mooy fexe ba indi ay saafara ci jafe-jafe wala boo crise bi nga xam ne foofu ca Mali ba noppi itam fexe rek ba bàyyi xel askan wi ak seeni bëgg-bëgg moom euh, Cheikh Tidiane gaajo muy ndaw loolu dina euh, liggéey ak ñoo xam ne dañu nekk euh, fépp ci àddina wërngal këpp lu ci mel ni CEDEAO waaye itam Union africaine moom rek dina daal di fexe ba gunge secretaire général bu francophonie ngir rek ñu daal di fexe ba mbir moomu ñu génn ci ci jàmm jël nguur gi daal di koy jébbal ñi nga xam ne ñoom ñooy civil yi moom moom Cheikh Tidiane euh, gaaju fii ak ay fan yu néew euh, ñu ngi koy xaar foofu ca Bamako mu fas yéene faa jiite ab délégation ñu soobu ci waxtaan yooyu yile munu jógee ci mbir moomu yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf ku leen waxati waxi geste barrière bu leen neexee fàtt seeni nopp ndax ki war a jiitu ci sàmmonteeg geste barrière yi di Macky Sall journal L'As bind na ne moo njëkk a salfaañi geste barrière yi sàggane ko ba ñëpp teg ci seen i gët ubbi leen bi ngir gisal seen bopp ak seen i gët tournée économique bi mu doon def ci Sine Saloum ci week-end bi di ci gaaw bi ak dibéer bi tournée ba ci mobilisation militant ca la mujj li ko tàmbalee Ñaaxaar ba Saroudia jaar Fatick commune Sokone wala Toubacouta fu ca Macky Sall jaar ko cortège am rek askan wa dagg defum diran topp ko dajaloo am mobilisation am askan wa dandante wuñu distanciation sociale amu fa Macky Sall ma woote ak askan wa ko wuy ji amul kenn ci ñoom ku jëfee geste yi ñuy santaane ngir moytu coronavirus bi la tribune bi ne ci njëkk ne Macky Sall miy woote mooy toog fagaroog fàggu ci coronavirus bi ci tournée économique bi mu doon def démb ak bërki démb dem na ca sans barrière Fatick la njëkke jógee fa dem Kaffrine jeexale Kaolack li gën a fës ci tournée bi moo di ci jamonoy coronavirus gi mu ko def fu mu fi dem nit ñi dajaloo wër ko mobilisation am ñu àndandoo salfaañe sàggane li ñu santaane ngir moytu lu lawal coronavirus bi la defi ji woon ci Sine Saloum wàllu moom président national xëy nañu ci may bokk na ci politique yu yees yu muy nas ngir moderniser mbay mi maanaam méngale ko ak jamono ci kaw loole sàkku na ci producteurs yi ñuy taxawal ay coopérative ci seen biir privé national bi ci réew mi sàkku na ci ñoom ñu dugal seen loxo ci wàllu agrobusiness ci xët mu njëkk journal Le Quotidien kàddu njiit réew mi Macky Sall mu di fa xamle ne li mu jublu ci dem ga mu demoon ci Sine Saloum bokk na ci bëgg a di l'argent du contribuable fekkewu ko ne ba muy dem gàngoor la àndal ci xaalisu réew mi di l'argent du contribuable ci la ñu demee ci la ñu leen dundalee ci la leen dëkkalee wata yi leen yóbbuwoon rek la ca dem ca gasoil lu mu bon bon mat na fanweeri junni ci gasoil ci oto bu nekk ndax ba muy dem ñi àndaloon du ñu ñu ndaw seeni watay du ñu lakkulu ndaw ministre du plan ministre finance ministre agriculture ministre élevage ministre économie directeur a dox ci mayenu askan sangu mu solu dàllam naan mi ngi xooli nañu plan Orsec ci réew mi tereelu inondation yi ñoo ngi fi di wulee ñaay ak di jàllaa ko jaabaa jonge ci kaw askan wi ca Bakel dex gaa fa débordé ba lekk téeméeri hectare ak fanweer ak ñaar ca tool ya ca diwaanu Matam askano ñoo ngi ci jaaxle ak fitna gu rëy Assane Sylla di président mouvement émergence pour Sénégal ni ñu ci laatir bind problème yi inondation yi ci Sénégal lu jin njaag Mansour Faye mooy njàkk li am yépp mi ngi tukkee ci ni Mansour Faye yore woon mbënd mi ministre Khadim Diop yore woon na inondation yi ba dara xew fi Serigne Mbaye Thiam moo ngi koy soog yore kon bu dee am na lu xew ci diggante bi rekk ki newoon ci diggante bi la diggante Macky Sall ak troisième mandat caaxaan dindiwu ko Sud Quotidien nañu honorable député Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moo sulliwaat coow li bi ñu ko invité démb ci émission Grand Jury ci na yoon may na ko mu doonaat candidat 2024 Sud Quotidien nañu ubbil nañu Macky Sall aw xàll wu mën jaar ngir am troisième ba noppi tegal koy ñool-ñool yu mu war lijjanti bu ca bëggee yegg Vox Populi nañu président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Aymérou Gningue li mu wax démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média dafa leer nee na juridiquement yoon may na Macky Sall troisième mu ne du sax lu ñuy lam-laame ndax réglé nañu ko bu yàgg Serigne Ahmadou Macky Sall du lu dagaan ci yoon journal bi bind ne Serigne Ahmadou Gaye delloo na ay mbiru palaasam Seydou Gueye ma ngay tegaat Ousmane Sonko palaasam yëral xët mu njëkk Vox Populi chargé communication bu présidence de la République di Seydou Gueye nee na waxi Ousmane Sonko ñoom duñu ko jox benn importance ndax tàmm nañu jikkoom dafay saxaar rek waaye same mu tàkk mu ne mën a tiitaroo gis leen mag mbañeel gi Ousmane Sonko di doxee dafay wane rek ak matadem ci nit ku bëgg doon dara ci réew mi réew mi ak yi ñu fiy dégg bés bu nekk ubbi libération ngan di maami scandale lañu journal bi nañu moo am ci benn internat bu nekk ca mbaaw bu jigéen bu toll ci fukket ak juróom ay parents ñoo nga France jël seen doom di ci benn internat bu nekk ca mbaaw ndekete booba directeur internat bi mi ngi sëgg ci xale bu jigéen bi di ko keccaatu benn bés parent xale bu jigéen bi di xool seen téléphone doom ba gis ci ay photos saay-saay yoo xam ne directeur internat bi moo ko doon envoyé xale bu jigéen bi ci whatsapp bi ñu laajee xale bu jigéen bi ci la leen nittilee mbooleem lu mu mës a séq ak directeur internat bi ñu dem jàppi waa ji libération nee nañu mbooleem lañu ko doon tuumaal weddiwu ci moo doonoon dem seeti parent xale bu jigéen bi ngir may ko seen Euh, Mouhamed Ndiaye la euh, ñu koy sant bu baax di ko gërëm tase jàkkaarloo ak keneen muy Mamadou Ndiaye euh, mu fas yéene ànd ak ñun ci li xew ci biir internet bi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Faty di la nuyu di la jaajëfal di nuyu téléspectateurs yi internet yi. ki ma doon laaj gisagu ma ko de Mary Bey mi ngi ñëw mi ngi ci préparation kon baax na tontu nga sama laaj ñu sant leen bu baax gërëm leen desandi leen ak programme yu télévision Futur Média rédaction bi dig leen daje ngoon ci kattan yàlla ci yeneen jotaayu xibaar.